élection 2024 dañuy jaar dafay nekk benn déclic il faut savoir écouter son peuple am na lu bëri lu fi xew si 12 ans Macky Sall si mandat am na lu mu réussir am na loo xam ne des na am na loo xam ne c'est le capitale humain dans ce capitale humain il la jeunesse les murmures de la jeunesse dañ koy liir comprendre ko xam jeunesse booba lal lay xaar xam 2024 lan la ñuy xaar si 2024 bi si candidat yu bokk bennoo bokk euh, yaakaar candidat la candidature am na kenn koo xam ne moo méngoo avec la jeunesse avec les aspirations de la jeunesse moo ngi tudd Mame Boye Diao est-ce que moom wax na ni bëgg na nekk candidat ouvertement parce que boobu ba léegi ñii ñu gisagum yëpp dañuy làqatu ci gannaaw du yebal seeni nit ñu naan mooy suñu candidat mais ba kenn ci ñoom amul courage taxaw ni man président Macky Sall dama bëgg wuutu place mais Bira euh, ambition. Mm. da wax ambition. maam booy day ndaw réew mi jàngee si réew mi réew mi tàggat ko mm. mu amal njëriñ réew mi. mu delloo njukkal réewam ba nga xam ne c'est un commis de l'État su demee ba am fu mu toll day delloo lépp réew mi am vision pour réew mi am un homme d'État bu mu doon àndal nga xam ne moom la def leader am muy euh, le président Macky dañuy ànd man 2019 laa dem si euh, président Mamboy jaaw nee ko président man j'aurais souhaité loolu élection municipale bu Kolda depuis ñu doon dem élection municipale yi déjà en 2019 ma ne ko j'aurais souhaité parce que da nga yegg maturité politique bu war a mën a tax parce que si seen politique bi say rakk rek a fi nekk say rakk rek a nekk di politique je prends le cas de Ousmane Sonko loolu sax laa ko joxoon comme exemple ma ne ko sa rakk la yaa ko jiitu IGB yaa ko jiitu DGID te pourtant tey taxaw na ba nga xam ne réew mi lu mu bëgg a wax ak réew mi moo ngi waxtaan ak réew mi mi Eh, ñoo ngi koy tontu réew mi lu mu leen bëgg a comme vision ñoo ngi ko koy partage il m'a répondu mu ne ma moi je n'ai qu'un seul leader il s'appelle Macky mm-hmm. sama leader boobu loyauté moi je ne connais pas de loyauté à géométrie variable moom lay àndal tant que moo ngi bëgg damay bëgg mm-hmm. mu ne ma pour le moment tant qu'il tant qu'il a à un mandat dinaa ko gunge et je crois que le premier juillet loolu la def depuis mu ànd avec les élus locaux les 472 euh, te mu nekk maire. kon bokkoon na ci les théoriciens de la du deuxième. mu gëm ko nag deuxième quinquennat mu gëm ko nag. nga ànd ceeg moom yooyu nga ànd mu gëm ko. nga ànd nekk si di ko défendre. nga ànd moom. non mba ànd ak moom. si deuxième quinquennat si deuxième quinquennat bi moom mu gëm ko nekk si. ne sama leader tànk moo ngi bëgg damay bëgg te défendre na loolu partout jour boobu mënoon na ñëw am beneen taxawaay loolu lan lay wane mooy wane saa loyauté sa fidélité vis-à-vis d'un homme te loolu firndeel na ko pale le premier juillet muy continuer ak moom président jour boobu la leen wax ne moom il n'est pas candidat damay ànd ak nit gëm ko moom mooy sama leader moom dem na ba ne il n'est plus candidat à partir de ce moment man samay ambition war naa mën a am ambition pour sama réew Mame Boye naa fekk affirmer ambition boo xam ne ñëpp ñoo xam ne moom la bokkal nekk sénégalais loolu la affirmer mais aussi fan ko affirmer wax na ko président de la république xam nga doo toog ak président de la république président de la république doo toog ak moom pendant deux heures de temps ngeen di bavarder soo leen toogee da ngeen di wax si réew mi danga koy wax sa position nu mu ko recevoir noonu la recevoir les autres candidats à la candidature depuis ñu toog wax na ko moom lu tax mu bëgg a doon candidat wax na ko président. bi ñu ko laajee fii cette TV da doon tourner autour. non il n'a jamais tourné autour du pot si émission. Ah émission yaa ngi fi ay bongo tànkal waa Wakaam. waaw ah, loolu dañ doon doxantu yooyu yëpp di def doxantu tànkal. dañ doon doxantu. après dañ doon ah, doxantu vraiment. xam nga loolu depuis ñu fi doon ñëw émission pour loolu c'est une première ngay ñëw émission. mu am mobilisation ah bongo daal ah. Dakar génn na ba pare dugg wax ratatari ba génn waxoo fi dara lu nit ñi mën a jàpp ah, dakaar ah. génn nañu bu ñu la laajee lii nga tontulee man dama jàpp ne depuis émission boobu adhésion yu maam booy am dafa gën a yokk sénégalais ils ont vu un autre Mame Boye ils ont vu un homme d'État ils ont vu koo xam ne am na yërmande koo xam ne il prône pour la paix sociale koo xam ne dafa bëgg cohésion koo xam ne dafa jàpp ne on de Sénégal et que Sénégal là le Sénégal d'aujourd'hui a besoin de réconciliation su ñuy nee un peuple un bi une foi dafa war a nekk à la tête mu am le père de la nation dafay am fu ñuy yegg il faut ñu waxtaan. maam Boye si émission boobu loolu la woote nee na nañu balaa ñuy wax espoir balaa ñuy wax développement. il faut que sénégalais yi toogaat waxtaanaat te ñëpp xam nañ ne tey yaa benn division am na benn clivage ci réew mi boo xam ne c'est c'est un passif boo xam ne dañ ko war a dañ ko war a waxtaanee. d'accord donc moi je crois que la candidature de Mame Boye répond à son temps répond par rapport aux attentes du peuple te tamit damay wax ne président partie la yor président Macky Sall ba jusqu'au moment on parle. Macky Sall na euh, ah, euh, le président Mame Boye Diao n'a qu'un seul leader il s'appelle Macky